asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki ñu topp ci biir réew mi ak ci bitim réew ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax di leen nuyoo fii ci kër maam Cheikh Ibrahima Fall euh, fii nga xamante ni fii tey fi la jàmbaar ji di Sëriñ Amdi Fall wuutu fi maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na yàgg ci jotaay bi euh, tey di toggee liggéey bu tedd bii muy ndog yi nga xamante ni bii ku tedd ki Serigne Touba Cheikhul Khadim moo ko santoon maam Cheikh Ibrahima Fall ci njaarim cosaan li yàgg nañ koo nettali euh, ku baax kee ko woolu woon na ko damay séentu gan te bëggoon nga teralal ma ko Euh, te te gungeel ma ko te mooy weeru koor wii nga xamante ne bii eh, tàbbi nañ ci liggéey boobee maam Cheikh Ibrahima Fall tàmbalee woon ko ci njëriñ mu doon fukki ndab ak ñaar tey fukki ndab ak ñaar yooyu jur ay junni junniy ndab ci mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall euh, ku tedd ki nag di sëriñ Amdi Fall bi nga xam ne jot na liggéey bi te jàmbaar ji sëriñ Cheikh Fall jëmm euh, yàlla na yàlla yokk ay ngërëmam moom itam liggéey bu tedd boobu mu tàmbali woon ko doon ko liggéey ci gannaaw Cheikh Modou Falilou Fall sunu jàmbaar ja waaye yokk ko bu baax a baax a baax sëriñ Amdi ñëw nag gën a yokkaat liggéey a jar di ko nettali waaye tamit eh, daal di koy yaatal nag ci ne lépp lu waay indi danañ ko togg eh, mu mel ne nag eh, jamono ji moom dafay mel ne liggéey mi ngi ko tàmbalee ci gis nga gëléem yi mu ko tàmbalee ak nag yi waaye fii ñuy wax ak yéen nag ku ne xam na ne jamono ji dafay mel ne nag dafa manqué ndax léeg-léeg da gis daral yi fu ne la ñuy dugg pour am ay nag dem nañ ba biig dañoo génn sax dëkk bi dem fu sore sori ci àll bi ngir am ay nag Euh, kon nag di soññ murit yi di soññ taalibe yi di soññ ñi nga xam ne dañoo jaayanteeg maam Cheikh Ibrahima Fall waaye di soññ ñi nga xamante ni bi dañu ay soppee Cheikh Ibrahima Fall lañ ak ñi nga xam dañoo am yéene jox seen ñàq maam Cheikh Ibrahima nañ xam ne daal euh, Cheikh Ibrahima Fall jëf la woote euh, te jëf mooy jëriña ndax waxoon na ne lépp lu waaye am te joxoo ko yàlla jàppal ne sax moomagoo ko Cheikh Ibrahima Fall ne loo joxul sëñ Bamba dana xewi te bu xewee koo ko jox ko jël kon li ñu denc nañ xam ne sëriñ bee ko moom nañ ko ko delloo nañ ko koy delloo nag mooy fexe ba ñëw sofu ci liggéey maam Cheikh bi nga xam ne Cheikh Ibra moo waxoon ne ku ma ci jox lu toll lépp tànk ma fàggul la ci lu dootul yàqu boo faatoo mu duggal àjjana euh, ku ne xam na ne ndog yi ñoroon na ko lool ba nga xamante ni bi daana kar saxaar ndog yi di teg seesam di fa toog sëñ Modou Ablaye moo ma ko su doom dañuy wax laal la ñëw na ko bàyyi moytul saxaar si mu ne ko xanaa xamoon saxaaru ndog yi sëñ Bamba day dindi ak ñàkk xanaa xamoon saxaaru ndog yi sëñ Bamba day dindi ak ràgg tawat su mu fekk ci doomu aadama da saafara comme saxaar soo man loolu nag waxat rawatina jëf ji nga xamante ne bi tey fii sëriñ bi toog moo ñoo ko fi bàyyi li ñuy wax ñoo ko fi bàyyi moo ñu fi bàyyi ndax sëriñ bi daa tayle boppam te loolu murit yi kenn ku ne war na ci yëg boppam kon nag nañ fexe ba nag ak giléem yi ak xar yi ñu taxañ lépp indi ko sëriñ bi te Cheikh Ibra Fall maam moo ne woon dabe ndab nee na ku bëgg a dab yàlla yi nee na jullit jox ñu lekk ba suur buntu boobu rek a fi des muy buntu joxe ñam te buntu boobu ko ubbi kon nag kii fi teg nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall moom da fàkku na ba jeexal dencu dara ku gis ni songe liggéey bu tedd bi xam ne lam waxoonte woon ak maam Cheikh Ibrahima Fall jëf na ko Cheikh Ibra Fall itam moo ko fi bàyyi muy kéemtaan te dana gën a doon kéemtaan nag ndax fan wu gudd lañ koy ñaanal ba muy kéemtaanu maam Cheikh Ibrahima Fall Babi Mouridina waaye daal mbokk xam na daal fii ñuy wax ak yéen daal sëriñ bi moom mi ngi ci jëf ji ci la taxaw te Sëriñ nee na wax fu mu ne yegg ab diir jëf moo ñëwut waaye bu jëf ñëwee waxtu ko kon daal nañ xam ne jëf rek a fi des kon nañ fexe ba lépp lu ñu am ci aw ñaq lépp lu ñu am moo bu ci yàlla àndee te sëriñ bi bëgg na yokk liggéey bu ba baax a baax a baax ndax fii mu ko yóbbu rek kawe na njortu te yaakaar naa ne ci kanam la jëm ndax loolu mooy yéeneem loolu mooy pas-pasam ndax ku ne xam na ne la ma wax saa su nekk dama koy wax ne keroog ba maam soxna Fall Mbenda eh, yàlla dogal tabbee ci loxol maam Cheikh Ibrahima Fall Baay bi Mouridina eh, te te te te ba muy ñëwit eh, indaale lu bare bare bare bari ci maam Cheikh Ibrahima Fall jox ko Cheikh Ibrahima wax nañ ay takkaay ak ay ay ay ay ay ay fasak lu nekk indaale na ko ba ci am ci ñoo xam te ni bii sax dañ ko koo joxoon waaye lépp daa ñëw jox leen jébbal leen maam Cheikh Ibrahima Fall xam naa ci ñaar ñoo xam ne maam Cheikh Fall maam Soxna Fall Mbenda leen indi ci loxol maam Cheikh Ibrahima Fall Baay Mouridina waaye daal di jaayante nag Cheikh Fall jël njël la teg ci loxoom mu ànd ko mbooleem soxna yi mu bokkaloon ci biir kër gi euh, sëñ Siri Naar Jenn yàlla na yàlla dolli ko fa yàggal moo ma wax ne ma dégg na ci kenn ci mag ñi magi sëñ Baara Jenn yi mu wax ne am na bis boo xam ne sëñ Isaa Jenn gane si na maam Cheikh Ibrahima Fall ñoom ñaar ci benn jotaay korog maam soxna Fall mbenn daa yoroon bernde ya doon ko berndeel Cheikh Issa Diène nga xam ne ñoom ñaar suñu masaane daje wax nañ ne lu dul fàll rek lu dul ganaar lu dul ganaar bu ko la ko yónnee dañoo tey sëñ Naar Diène ku ne xam na ne ci kër gi la bokk Cheikh Ibra daana toog naan naaru yaa Soda Fall maa ko dégg ci penku bi te boobu nee na sëñ Naar ñëwagul jamono lépp day wane ne kon Cheikh Ibrahima nag nee taal boo gis mu tàkk roof naa mat nag <laughs> waaw loolu la waxoon nee na taal boo gis mu tàkk roof naa cak mat moo tax Cheikh Ibra loolee nag maam soxna Fall Mbenda liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall moo tax koroog ba benn ba ñëwee 1904 muy sëñ Modou Fall Mbenda ca Tasineer Seera Fall ne benn la waaye dana barkeel damay wax saa su nekk du ma denc di ko wax barkeel mënut a weesu tey kër Seera Fall gépp topp ci gannaaw sëñ Amdi Moodu Mbenda kon lii la Seex Ibra doon junj maam soxna Fall Mbenda lii la doon junj ci sëñ Moodu Fall Mbenda tey te sëñ bee ñu wax nii nañu am na lu sëñ Moodu Mbenda ñaanoon boromam nee na ci sama jëmm ji la fay sëñ Amdi ñu ko wax fii ci biir kon nag loola feeñ na tey ji mooy liggéey bi xoolal fi ko yóbbu tey te mi ngi nii toog demul fenn lépp dox kon nañ xam ne képp ku dub taalibe ak foo mën a nekk lii war na laa soññ kon